jaa jëf ci ànd bi ak télévision Futur Média xibaaru digg ba bëccëg beeg ponk ca gën a sëf fës kon bokk na rek eh, ci àtteeb imam Alioune Ndao ma ngay wéy nag gannaaw ba ñu boolee déglu rek mbooleem ñu ñu tuumaal ca boobee bàtte tey ji nag procureur eh, mooy wax rek ci altine ji ci kanam tuuti daañu ko ak Aminata Mbaxe Sow askanu Deni Malick Guèye démb ña nga woon eh, ca mbedd ya di ñaxtu di wéy nag di sàkku ñu jox leen dàmpaay ndax liggéeyub jam ñaajo leen loraangee seeni suuf kon dem na euh, ca liggéey boobee Kaffrine at mu ne ñu ngay dund ay jafe-jafe yu tar ci ndax mbënn mi moo waral nag ñooñu nga xamante ne ñoo cay lorule daal di bootu ci ab kuréel ren nag dañoo teel a soññu kilifa yi bëggatuñu nag ñu fay ñëw saa yu mbir ma amee rek ñu leen di indi lay dund naan jàpp leen ci boole kook jaabante goo xamante ni ay diggee kese la diggee njul mës di euh, jëfee euh, Serigne Mbacke Ndiaye mi ngi sàkku nag ci mboolem ku boor ku ci parti démocratique bu Sénégal njabootuk def libéral daal ñu daal di rek kon euh, bootu ci ginnaaw euh, yi sàll ndax euh, moom la jàpp ni mooy candidat daal bu ñu wóolu moom moomee nag loolu lay sàkk moom Serigne Mbacke Ndiaye di fàttali rek ne moom mooy njiital convergence patriotique nee na nag tëj gi nga xamante ne nii kon tëj nañu ko kii di Karim Wade warul am lenn loo xamante ne kon yàq na ko ci mbir mi Serigne Mbacke Ndiaye daa ngeen déglu ay kàddoom ci biir xibaar yi yii daan ci toftal xët yu njëkk yu yéenekaay yi bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram-fàccee xibaar yi. dalal ak jàmm ci xibaar xibaaru digg bëccëg bi ñu tàmbali ko rek ak àtte bu Imam Ndao nga xamante ni mi ngi wéy wax naa ko sànq ñooñu nag ñu tuumaal daal euh, ci euh, procès boobee déglu nañu leen tey procureur euh, mooy wax Aminata Mbaare Sow ma nga ca ëttu àttekaay ba Aminata Mbaare Sow. Euh, kon mu mel ni ami Aminata Mbaare soow mu ngi fi woon waaye dafa mel ni kon euh, mujj naa dem moom Aminata Mbaare Sow euh, xëy na nag ñu jokkowaat ak moom laata ñuy jeexal xibaar yi ñu des ci loolee ndax ni ma ko waxee woon mbooleem nag ñu ñu tuumaal ca boobeeb procès déglu nañu leen ba noppi seen lim nag toll ci fanweer ak ñaar ñoo xamante ni ñu ngi leen doon déglu mbooleem nag ñu ñu déglu yëkkati nañu ay kàddu foofee ca tottekaay ba la xamle nag mooy am na ñoo xamante ne jot nañoo dem euh, fële nga xamante ne ni euh, moom mooy Nigéria waaye nag mosuñoo laaleek benn yoon ak li nga xamante ni moom mooy wàllu euh, terrorisme Aminata Mbaari Sow di ñu fàttali rek jaar jaar jaar jaar yooyu ca toitekaay bi procès pour terrorisme bi ubbeeku fii ci Ndakaaru dañ ko wéyal altine gi bi la yoon nag procureur de la république mooy jël kàddu ngir wax lan la jublu ci ñi nga xam ni dañ leen accusé ci wàllu terrorisme ci fàttali nag procès bi ni mel guleet muy am fii ci Sénégal toll nañ ci fanweer ak ñaari nit yoo xam ni dañ leen andi ci tribunal bi ñu leen ne ñu tuumaal leen ni dañoo dugal seen loxo ci ay projet terrorisme waaye tamit dañoo luubal ab xaalis boo xam ni ci terrorisme la jógee ci question réponse yi nga xam ni jot na dox diggante accusé yi ak kii du juge Samba Kane ak procureur de la République laaj na leen laaj yu bëri ci seen diggante Boko Haram lan la ñu xam ci secte boobule ñoom lan la ñu xam ci Daesh est-ce que am nañu ay relation ak Daesh waaye tamit ban jàngat wala ban gis-gis la ñu am ci wàllu jihaad ci réponse boobu nag ñu bëri ci accusé yi ñoom nee nañu suñu bokk ci benn combat bu ñuy amal fii ci Nigéria wala feneen waaye naam nee nañu jot nañu dem fële ci Nigéria. Euh, ci réponse am ci kanamu juge bi Mactar Diokhane nee na naam jot na dem ca Nigéria waaye moom liggéey bu am solo la fa jot def waaye fekk ndaxte fekk na fa ay doomu sénégalais yu nekkoon foofu ci ay coono mu génne leen fa jox leen xaalis ngir ñibbi ci Sénégal. beneen tur bu ñu nemmeeku lu bëri ci procès bi lee mooy imaam Alioune Badara ndaw mu taxawee ci kanamu juge bi moom nanguwul benn yoon liñ koy tuumaal ndaxte moom nee na jihaad lim ci xam mooy jàng ut xam-xam boo paree xam-xam boobulee nga daal di koy bokk ak say moroomu jullit ba pare tamit moom nee na ngir ñu amal ngir taxawaayu jullit yi gën dëgër ci àddina bi faw ñu dialogué ak ñëpp nag muy confréer confrérie yëpp Aliou ndaw andi na ay leeral ci xaalis bu ñu nee daf ko jotoon ngir financer projet boobu boobule ci tënk rek ñu jàpp ne procès bi mu ngi wéy ba léegi ndaxte ginnaaw bi ñu dégloo ñii di accusé yi procureur de la république dina jël kàddu altine gi moom procureur nag dina wax lan lay xaar ci accusé yi ba pare tamit ci yan anam lay sukkandiku ngir accuser leen ci wàllu terrorisme Aminata Mbaari Sow ñu des ak yow gannaaw ba nga ñu tënkalee loolu yaa ngi ci ëttu attekaay bi Aminata Mbaari Sow nuyu naa la. tey naa la nga nekk foofu Aminata Mbaare Sow wax nga ko léegi ci bi ngay tënk euh, tey nag procureur moo fas yéene rek addu wax nag li nga xamante nii moom la nar euh, gannaaw ba ñu dégloo ñooñu ba noppi lan nga ñu ciy tënkal. ni nga ko waxee actuellement procureur moo nekk di wax ci suba ba léegi moom nag instant bi dafa yëkkati ay kàddu rek wala joxe peut-être moom ay explication yoo xam ni mën na dëggal ne peut ñi ñuy accusé li ñu def ñoom ñoo ko def donc ci suba ba léegi procureur moo yore kàddu gi moom nag ay euh, explication mu ngi ko tënk ci ay poñ euh, li mu njëkkee mooy expliquer li nga xam ni accusé yu bëre ñi jaar ci baar yi ne demoon nañu Nigéria donc foofu la njëkk tëkkee euh, ñëwaat na nañ ko def foofee ca Nigéria surtout euh, ci fi nga xam ni mooy Abadam di état boo xam ni di benn gox koo xam ni euh, ci Borno la nekk te bu ñu waxee Borno xam nga foofu zone Boko Haram la donc moom nee na euh, déjà explication boobu la fait que sénégalais yooyu déplacé wu dem ba foofee ci Borno nga xam ni Boko Haram moo moo moo moo tee foofu moo moo moo presque moo dominé foofu donc déjà loole ay explication joxe na ko donc nee na la plupart accusé yi ñoom expliqué nañu seen condition yi ñu fa nekkee woon ak li leen taxoon a dem foofu beneen état bi également mu mettre l'accent sur un tout petit peu dëkk bi nga xam ne mooy Goza Goza di benn dëkk boo xam ni léegi Fatxul Mobile lañ ko tuddee foofu ba léegi ca Nigéria la nekk moom nee na accusé yi biñ fa demee la plupart du temps dañ leen doon jàngal ci maniement arm maanaam naka la ñuy jëfandikoo ay arme au cas buñ ko bëggoon jëfandikoo ak tamit li ñuy woowee ay chars de beneen explication bi nga xam ni tënk na ko mooy accusé yi la plupart du temps ñoom nee nañu euh, foofee ñu nekkoon peut-être zone Boko Haram la te ñoom nee nañu dëggal nañ ne euh, biñ fa demee dañu demoon pour peut-être jàng xam également naka la ñuy def ba ay combat bu amee ñu mën cee bokk Euh, beneen aspect boo xam ni mu ngi koy développé actuellement ci ci la tollu ba léegi mooy kaaw Maktar Joxaane euh, di keneen ci accusé yi te moom mu jàpp ni peut-être Maktar Joxaane boobule voyage yooyu yëpp sénégalais doon amal moom moo nekk ci ginnaaw bi moom nee na Maktar Joxaane ay projet yu bëri la amoon bokk na ci projet yi mu njëkk taxawal mooy fexe xale sunnit yi nekk fii ci Sénégal mu amal ak kuréel boo xam ni daf leen ciy boole su ko defee ñu mën a défendre seen intérêt mën a tamit défendre bépp pression bu ñu yëkkati teg ko ci seen kaw euh, beneen projet bi nga xam ne euh, procureur de la république euh, maanaam ki fi représenté ministère public jot na ko développé mooy projet bi nga ne Euh, imam Aliou Ndao jotoon na ko def mooy projet de développement local moom nee na projet le euh, day entrer en contact maanaam dafa am liaison ak instauration charia bi nga xam ni bëggoon nañ ko def fii donc moom mu jàpp ne euh, imam Aliou ndaw ci fànn woowe lañ ko mën a dugal ci le fait que xamoon ni na kii di Makhtar Diokhane bëggoon na dem Nigéria par contre ci fàttali imam Aliou ndaw bi mu taxawee ci kanamu juge bi moom dafa ne mosul xam ni Mactar Diokhane da doon dem Nigéria moom nee na loole amul ndaxte instauration projet de développement local le dafa am liaison ak instauration charia bi nga xam ni Mactar Diokhane ak yeneen xale yi mu doon liggéey moom la ñu doon amal Euh, leneen rek peut-être fi mooy mujjee mooy euh, projet bi nga xam ni Maktar Joxaane aussi nee na jotoon na ko ci téléphone portable mooy installation état islamique fii ci Sénégal ci Gambie ak fële ci ñaari Guinée yi moom procureur de la République ba léegi nee na lu tax waa Daesh jël tànn kii di Makhtar Diokhane envoyé ko projet bi ni mel ci portable am lu tax envoyé ñu ko président de la République du Sénégal lu tax envoyé ko yeneen autorité yi nga xam ne nekk nañ fii ci dëkk bi euh, te tekk fi lu bari donc moom nee na Makhtar Diokhane loxoom setul euh, ci projet boobu le su dee sax moom Makhtar Diokhane dafa défendroon ni projet boobu certes jotoon na ko mais dafa jàpp ne projet boo xam ni la euh, du mën a am te jàppee ko woon benn amul woon benn sérieux ci gis-gisam procureur moom nee na loole amul actuellement mu ngi nekk di vraiment apporter euh, des des explications ak li nga xam ni foofu la nara a sukkandikoo pour peut-être euh, joxe benn peine mhm. wala peut-être accuser ñi nga xam ni ñoo taxaw ci kanamu euh, cour chambre criminelle mhm. te ñu leen di toppee wàllu terrorisme ak ak jëlee xaalis boo xam ni ci wàllu terrorisme la jógee. Mangook Aminata Mbaare Sow ñu koy jaajëfal bu baax a baax nga doon jokkook ñun foofee ca ëttu àttekaay ba wax nga ko. tey ji nag procureur moom rek euh, moo jël kàddu gi jëm ci àtte boobu soxal euh, Imaam Ndaw ak mboolem ñu ñu euh, tuumaal xibaar yi ñu wéyal ko ak askanu deli deni Malick Guèye ca ñaajo ñoom nag démb ña nga wàccoon ca mbedd yi rek di ñaxtu li ñuy sàkku nag ci kilifa yi mooy ñu jox leen ndàmpaay ndax liggéey pôle urbain bu ñaajo boobee def leen gàllankoor lu bare bari seeni suuf tey moom la ñu ca ñàkk Ousseynou Thiam Ahmadou Bamba Samb ci leeral di askan wi yeewoo fii ci déenu Maala Gueye nag daal di wàccaat ci mbedd mi ñoom nag nee nañ dañuy ñaawlu suuf yi nga xam ne nii lii di pôle urbain bu Diamniadio da koo jël mer ba futt lool ñoom nag nee nañ kii di délégué général bi respecté wul benn yoon négociation yi nga xam ne nii doxoon na seen diggante. xamante ne nii amaloon nañ ko ak Seydou Sall ba tey respecté aussi dara dara dara nee na ñun population de Dédé Baali Gueye li ñuy laaj c'est simple mooy sañu extension toog na amal am ndaje ah la presse sénégalaise ne carrément extension bi nga xam ne ni moom la réservé waa Dédé maa liggéey mat trois fois dëkk bi loolu loolu lañ soxla mun nañu extension fii la les délimitations di pôle urbain aussi dañ ko soxla parce que Déni Malick Gueye a trop donné. mu doon ay tuuma yoo xam ne yi nag ki nga xam ne ni moom lañu ñu lii di pôle urbain yi daal di ko dàq. Déni Malick dañoo ne dañoo jël seen suuf état bi dafa jël seen suuf pôle urbain yi jël seen suuf. Euh, euh, du ñun loolu lañ ko gisee c'est un décret du 25 novembre 2013 plus précisément même 25 juillet 2013 rëdd ne fii dañ fi def pôle urbain mais pôle urbain bi état bi moo koy def état bi taxawal benn kuréel ci biiram bu ñu wax délégation à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose état bi jël benn décret décret bi c'est un décret 2014 968 du 19 août 2014 décret boobu moom moo immatriculé suuf si. wow askanu deenu Malick Gueye di interpellé nag kii di njiitu réew mi ne nag danañu wéyal combat bi ba li ndàmpaay yi nga xam ne ni moom la ñuy laaj seeni suuf ñu jot. ci Kaffrine at mu ne askan wa ñenn ña ña ngay jànkuwante lay jafe-jafe yu tar ndax euh, mbënn mi ma waral nag ñooñu sax bootu ci ab kuréel ren nag dañoo teel a jug la ñu wax ngir soññu euh, kilifa yi la ñuy gis nag at mu ne bëggatuñu koo gis ndax saa yu mbënn mi ñëwee rek euh, kilifa yi nag dafa doxante di leen indi lay dund naan leen jàpp leen ci boole kook diggé yoo xamante ni kenn du ko mës a jëfee Ibrahima Diamé. ñu ngi déjà ci njaqare bu rëy te nawet ñu tegul askan wi dëkkee kon ci quartier yi di Diamaguène centre ak Kaffrine 2 daanaka at bu yàlla sàkk ndoxu taw yi génne leen seen kër yi moo tax collectif bi nga xamante ni taxawal nañ ko te mu boole ñi lorule ci inondation yi la kon teel a jóg yuuxu yëglu ci état bi di dénoncé di nag ni nga xamante ni dañ leen di promettre à chaque fois mi kenn du ci gis lenn. depuis ñaar fukki at ak juróom 1993 ba 2018 benn inondation gouvernement bu ñëw ay waxi kese Kaffrine dañoo sonn inondation inondation mooy suñu problème majeur ay cito ay sénégalais citoyen lañ dañuy def suñu devoir di revendiquer suñuy droit le président de la république en personne defal nañ ko suñuy devoir nañu satisfaire suñuy droit bu ko defu tee élection mu ngi ñëw dundu giñ leen di jox wala toxal biñ leen di toxal ci l'école ya sa su tawee loolu nag ñi bootu ci collectif ñi lorule ci mbënn mi nee nañu bëgg toogatuñ ci lenn te ñu woo ki nga xam ni moom mooy président de la république. léegi dañoo doyal ci pepp bu dugub yi ñu jox pepp ceeb yi ñu jox ak ci toq dawlin yi ñu jox soxlawuñu loolu xiifuñu maruñu inondation bi inondation la ñu wax inondation ma maruñu matelas yi doy na. lu ñu bëgg mooy mu defal ñu ay bassin de rétention autour de Kaffrine lu ñu bëgg mooy fii mu defal ñu benn centre d'épuration des eaux usées et des eaux pluviales loolu la ñu bëgg raay bi mu defaral ñu ko ba nga xamante ne nii dugtul bënn daanaka at bu jot bu mbënn mi di sonal waa Kaffrine daañu fi gis ay ministre ñu fiy jaabante di indi ay dund wala ay consolation ak ay promesse de solution waaye ba tey jii nii gisaguñ fi lenn lu fi taxawoo ñi it euh, nee nañ sonn nañu ci euh, diggé bi diggé bi njiitu réew mi Macky Sall defoon muy nag chef de village yi nga xamante ne nii euh, ñoom ñoo nekk ca commune bu Bouroko ma nga nekk ca département bu Médina Yoro Fula nee nañ nag njiitu réew mi jano boobu mu doon janoo ak askanu Sénégal discours à la nation ba dafa am rek li nga xamante ne nii moom la ca waxoon muy nag ndàmpaay yu muy jagleel chef de village yi ba nëgëni Furaas Abdoulaye Diallo. kuréel bu ëmb borom dëkk yu buuru ko di gox bu diwaanu Medina Yoro Fula ñooy fàttali njiiti réew mi diggee bi mu leen diggoon ñaari at ci ginnaaw te jëm ci wàllu indemnité yi borom dëkk yi waroon a jot borom dëkk yi ñoo amal ab assemblée général ngir fësal yàkkamte gi ñu yàkkamte gis boobee diggee bi leen njiiti réew mi diggoon daal di antu. ñu wax ci kàddu association mais ci kàddu borom dëkk yëpp Sénégal parce que ñun ñoo bokk benn jàmbat bi ñoo bokk benn benn tawat bi ñoo bokk benn jàngoro bi. président li ñu bëgg mu dimbali ñu na dimbali borom dëkk yi. ci discours am euh, mën na ñaara at euh, euh, avant lii waxoon na ne borom dëkk yëpp dañ leen jàppale li war àq bi war ci ñoom mu doxal ko ñun nag borom dëkk yi yëpp kenn ku ne xoo neen la wax la fi ngay jaar laaj la say kayit te ne ñu ëpp ci borom dëkk yi doo euh, toppatoo seen kii yu war a am yëpp am nañ ko déposé nañ ko au niveau de la euh, kii euh, sous préfet mais ba léegi ñu ngi toog di xaar loolu moo tax na ñu kër suñu kàddu jëmee ko ci monsieur le président di ñuy jànkonteel ak ay jafe yu tar ci seen wàllu liggéey yooyu borom dëkk ñooy sàkku ndimbal ba léegi ci njiitu réew mi ndax boroom dëkk bu ne sonn na lool ci nekkinam ci borom dëkkam ndax kenn hump lu borom dëkk lu mu sonnee ci ni mu nekk ci borom dëkkam ndax tey fu waay jógee ci foo koo mën a dox ak comme doon dañ laa dema ko borom dëkk laa wax comme nag léegi loolu moo am te borom dëkk amul benn matuwaay amul benn loo xam ne ni mën na koy euh, aare boppam amul benn loo xam ne ni mën na koy suturaay boppam ñu bëgg nag yëkkati suñu kàddu jëmale ko ci président na ko ni ñu ko tàllal loxo na ko ñu dimbale borom dëkk yi président de la république dafa nekk ci liggéey boo xam ne mu nga ca ña rafetal ñëpp dig na leen kado da leen fay borom dëkk nag lim xenu diis lool ndax gan goo xam ne gan gu ñëw ci dëkk xamula dof la xamula sàcc la xamula ku rey nit la dañ laa joxoñ na la demal kër boroom dëkk ndax man am naa ko am naa gan mu ñëw wane na surga la a doo fanaan fa ñaari fan jël fa bagage bu dul jeex dem ak moom te loolu yëpp finn la moo tax borom dëkk yi dañ bëgg ku leen dooleel dimbale leen dimbale leen ci lépp jox leen kaaraange dimbale leen ci doole mboolem borom dëkk yu goxu buru ko teewe nañu ci bile ndaje ngir également ñu fësal seeni xar gi ci campagne yu njaayum gerte gi te ñu waxaale it seeni soxla gi ñu soxla matériel agricole ak bépp ndimbal bi aajo woo wàllu mbéy ñu del si fii ci ndakaaru wax nag ci jafe-jafe yi nga xamante ni ñàkkum ndox mi euh, indi na ko yenn ci gox yi euh, ñu ngi sonn bay bëgg a dee bokk na ca fële Grand Médine euh, Parcelles Assainies foofee askan wa ña ngay toltolaan bis bu ne rek ngir am ndox mu sell ña ngay wutali sax citerne yi nga xamante ne nag ñoom la ñu yóbbu fële ca boori stade Léopold Sédar Senghor mu mel ni kon njëkkante bu metti la ngir am ndox Alhassane Ba coono wi daanaka ci xar kanamam da nga ko gis moom Aïda Ndaw soxna si moom ca Grand Médine lay bàyyeekoo ñëw si fii ci buntu stade Léopold Sédar Senghor wut si ndox. metti na torop xam nga ne jaboot moom mënut a ñàkk ndox ndox moom mooy àddina boo ko ñàkkee da ngay am problème. du moom képp nag daanaka ñiy dëkkee ca Grand Médine wala boog ca Parcelles Assainies daañu jubal si fii. ngir fexe duy seeni seen paan seen bidon. bi ma xëyee nii ngeen may gisee ne sëlmu sax defuma ko ndax ñàkk ndox. ndax danga root si. yaa ngi ndox mi moo jeex. ndox mi moo jeex gis nga de. ñaata paan nga am. benn benn paan. benn paan gis doy na am. ah. rang bi na de kañ nga ñëw ci suba. sànq nga ñëw waaw. ñaari paan yi doy na. waa doy na. bu ngoonee di nga ñëwaat. non non man dëkkuma fi sax. gis nga nii xam nga ne lii xëy na ba leen fi jóge ay une te ndékke woo defoo dara yaa ngi xëy rek dugal si añ mi ngi noonu. bu ñu sukkandikoo ci Kiné Diop camion ndox yi nga xamante ni waa SDE dañ ko yone ci gox goxaat yi dañ ciy jot ñoom wante nee na doyut. ñi ngi ñëw moom par nànk-nànk mais bariwul da ngay ñëw gis ku ñëw benn par mën naa ne par benn oto ñooy ñëw par jour bu ñu ñëwee xam ñun benn oto ndox doyul biir Grand Médine macha allah doyu fa bu ñu doon dimbale daal si bu dee ñaari oto ndox la sax wala ñett sax ñu man gérer suñu famille xam nga. accident man gis naa ci benn fële mais li ma fa gis mooy dañu jël lu mat ay xandi xandi xandi teg la ko di root xam nga dafay am xëccoo day dem ba am xëccoo man a xaama ñoo xool fii dem xëy na robinet xanaa du yàgg xanaa xëy na fii suba mu xëy na la wax muy yaakaar bi mu am wante nag soxna yi bu ñuy yóbbu seen ndox yi des fois dañuy faral di fay dawalkatu saret yi lu toll ci ñaar téeméer jàpp ñetti téeméer. bu ñu rootee nii dañuy fay baram saret gis na ne ñu ngi nii taxaw dañ leen di fay ñu mën di yóbbu ah da ngay gis ku fay ay 1000 francs sans dépense ci bitéeli rek ni mu toll da ngay gis ku fay ay 1000 francs 1500 ñu war laa yóbbu sa ndox am nga rek dafa métti. ñàkkum ndox mi fii ci capital bu Sénégal daanaka nu métti lañ koy dundee ñoom soxna yi wante nag dañuy obligé def ak li ni mel le temps nag liggéey bi ñu amal fële ca usine ndox bu kër Momar saax jeex. ñu jaajëfal ko bu baax Alassane Ba ñu dem ba fële ca diwaanu uh, Ziguinchor wax nag uh, ci uh, kuréel yi nga xamante ne rek ñoom ñoo taxaw ngir nag xeexal ndaw ñi rawatina ak ndaw ñi nga xamante ne dañ leen di fëkk di leen def nag sudul noonu loolee nag lañ bëgg mu dakk foofee moo waral sax ñu daal di lëkkaloo ak juróom-ñetti dëkk yi nga xamante ne nii ñoom ñoo nekk ca commune bu Adéane solo sa nag mooy di tàggatay ndaw ngir nag ñu xam ràññee bu fekkente ne gis nañu defkatu ñaawteef yooyu ñu teel a jug nag kalaame ca ba muy teel ñu teew teewlu Malick Ngom ci micro bu Bakar Diassi suñ dajee fii Jifangoor c'est tàggat ndaw yi maanaam lu ñuy wooyee aînés protecteurs yi sur les techniques d'animation socio-éducative maanaam lu ñuy mën a jàppalee ci euh, seen i gox yi euh, seen xale seen xale yi ñu mën a nekk ci ay nekkin yu mucc ayib wala xale yoo xam ne ñii ci ay tolof tolof wala ay jafe-jafe ñu mën koo oh, yeggal mag ñi ñu mën jéem a xool xale yooyu nañ leen di gindi ci luñ nekk noonu. ñuy dégg ci télévision yi que rab d'enfant euh, ay rab d'enfant maanaam ay xale ñu jàpp di leen faat wala di leen teg yenn métit yi nit ñi lu ñu war a xam rek ne structure benn structure am moomut ci protection aar xale. aar xale population bi yëpp a ko yelloo même euh, même ci si euh, suñuy aada wax nañ ni que même doom mu doon sa doom mu doon doomu jàmbur war nga def lépp pour xale parce que ah, xale mooy euh, avenir u ëllëg donc nit ñi dañoo war a def population bi war nañ xam ni waruñoo teg xale yi métit parce que xale bu ñu leen tegee métit ban ban ëllëg la ñuy am ñu wax rek eh, ci ay bis bi nga xamante ni moom la ñu jagleeloon li ñu duppee école de base loolee nag daal di nay ndar képp fële ca eh, gulumbu eh, seetlu ga nag mooy daara ya ña ngay jànkonte lay jafe-jafe ci wàllu ndox mu sell ci wàllu ko courant naka noonu waaye tamit ci ay salle de classe moo waral sax ndongo yi léeg-léeg ñu leen di diggal bu ñuy dem école rek ñu yor ndox mu bari ndax loolu mooy mën a tax bu ñu maree naan waaye tamit nee nañ dina mën a tax tamit ñu daal di rek daal ay bërëbu jànguwaay yoo xam ne ay mbaar la yu nu tabaxagul ñu am ay jafe-jafe ci wàllum ndox amaguñu courant waaye itam ba tey école yi yi ci gën a bëri amul mur de clôture lenn ci ay salle de classe yoo xam ne tàmbali woon nañ koy tabax daanaka tabax ba defar na sax boobu ak ni si yeggale ko fi nga xam ne nag moo faree ci gulumbu ak li ko wër faree ci biir département bu Tambacounda dañu ni élève bu ne booy xëy di ñëw ci daara ja na nga indaale luy toll ci juróom-ñaar ñeent école préscolaire scolaire euh, ñaari collège parce que dañuy jëmbat ay garab te garab yi tamit xale du ñu mën a am ombre fu ñuy nekk te du ñu mën a def maraîchage duñu litre ndox pour garab ñu jëmbat pour ñu mën a baax mais quelque fois am na ñu si baax am na ñu sul baax parce que amuñu clôture ndox bi tamit jafe na amuñu ndox parce que école yu ñu am ndox bëriwul maanaam école itam ñu ngi clôturé ndaw na parce que boo xoolee motul ñetti école bu nga xam ne am nañ clôture ñu des yëpp amuñu clôture. kuréel bi lëkkale baykat banaan yi nekk ci vallée du fleuve Gambie ñu koy wax APROVAC ànd ceeg waa Action Aid ñoom nag ñu ngi def seen kéemtalaayal kàttan ba lépp lu jëm ci wàllu àq ak yelleefu tout tànk yi nekk li nga xam ne dañ koy toppatoo école nasaraan yi fi ne. ci village yi nekk yi APROVAC di intervenir ñu wax ak chef de village yi wax ak wax ak directeur enseignant yëpp si àq ak yelleefu xale yi droit numéro troit bi mooy nañu fexe ba am ay jumtukaay dina jàppandi te dina jag moom lañ seetlu ni muy droit numéro 3 moom la ñu gën a néewal doole fii. ki nga xam ni moo toogal ñi ngànk wàllub njàng ak njàngale di inspecteur Fall ak ki nga xam ni moom mooy maire bu Missirah nee na ñu def lenn ci jafe-jafe yi nga xam ni dégg nañ ko fii ñu daal di ci indi ay saafara. ni ma koy waxoon sànq ci ponk xibaar yi ak faluk njiitu réew mi ci atum 2019 Serigne Mbacke Ndiaye mi ngi sàkku nag ci mboolem njabootuk libéral rawatina ak parti démocratique bu Sénégal ñu daal di rek bootu ci ginnaaw Macky Sall ndax jàpp na ne nag moom mooy candidat boo nga xamante ni candidat bu wóor la loolee nag la xamle moom coordonnateur bu convergence patriotique ne na nag tëj ga ñu tëjoon Karim wadd warta doon benn yoonub gàllankoor kàddu yi ca pi la ko moo ñu ko jottali. mën nañu bokk yoon sax te bañ a ànd maanaam ñi jaar fi ñi jaar fi mais bu dóor jotee na ñëpp dóorandoo te comme ñun ñëpp ñoo bokk benn candidat mooy candidat Macky Sall le président Macky Sall ñun ñëpp gisuma lan moo war a tax muy am xaajaloo ci suñu biir. ba ñu président Wade di wax ne dama bëgg ñu garder pouvoir pendant cinquante ans boppam taxul def na douze ans dem. doomam ñëw incha rab rabbi dina def douze ans muy vingt quatre. Fada ak ku mel ni moom ay ndaw lañu mataguñu am bay ñàkk te jàpp naa ne suñu bëggee loolu mën a wér dañu ñëw àndandoo ñu jàppale kii nga xam ne c'est notre frère bu deuxième mandat jeexee ñu seet ci suñu biir du waxu caaxaan suñu candidat fi may toog di wax yow wóor na ma ni man làq na 60 pour cent. li indi juuyoo diggante Macky Sall ak président Wade ka ko def. candidat la ci élection yii xam lu tax man li ma président Wade wax ni ma préparer leen jàppale Macky Sall en 2012 te booba ñu ngi 2007 mais bi ma ko waxee 2007 ca këram au palais ba ma génnee responsable ba mu recevoir xëy na mi ngi may dégg xam na ko xam naa Macky Sall xam na ko. bi ko président Wade waxee lim ma wax waaye dagul ah man président nag waxuma ki man du ma ci dugg président ni ko lu xew mënu ko parce que boole mu ci yëfam kon du ma ci dugg kooku lu am diggante Wade ak Macky Sall moo ko dox moo ko yàq Euh, ñu daal di kon yegg ba Podor it euh, foofee wax rek ci kàddu yi nga xamante ni tukkee na euh, ci Mbaye Ndiaye moom nag daal di nay taxaw rek ngir nag wax liggéey bi nga xamante ni Macky Sall def na ko nee nag foofee ca Podor booy seetlu ñetti junni ci milliards kon dugal nañ ko fa ngir nag soqali Podor Mbaye Ndiaye teg ci ni ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy wax saa su ne di ŋàññi njiitu réew mi Macky Sall danoo xamul rek lim fi liggéey ndax bu ñu xoolee ci wàllu mbay mi ay jéego def nañu ko ci lu ci mel ni mbayum gerte mi ndax fa ñu ko jëlee ak fa ñu ko indi tey ku ne xam na ni euh, sori na lool Ousseynou Diop Habib Seck département bu Podor bokk na ci département yi nga xamante ni état bi def na fa ay jéego daal di fexe lu jëm ci wàllu yoon yi ñu defaraat ko ci koppar yéen fa dugal toll na ci 300 milliards ngir defaraat yoon yi waaye tamit dem ba dikk bi gën a mën a ñoŋ loolee mooy kàddu yi nga xamante ni jubal nañ ko ci cérémonie officielle gàmmu Suyma bañ doon amal ca Podor. le coût des travaux pour la route nationale. état bi daal nay def ay jéego route nationale bi ngeen di gis nii ak yeneen ci ay liggéey yu ñu tàmbali ci diwaan bi jàppale ni lu mu tuuti tuuti ñetti téeméer ci ay nañ ko ci loolu day wane liggéey bi nga xamante ni njiitu réew mi mi ngi koy def président de la république waa Podor ñu ngi ciy jaajëfal. dites au président de la république qu'il a les remerciements de nga xam ne soo excellence le président de la république Macky mu ngi koy def ci réew mi te yéen desu leen ci gannaaw le président Macky Sall mu ngi delloo njukkal histoire. 300 milliards rien que pour les infrastructures routières en ce qui concerne Podor ah loolu kooku xam na lan mooy valeur Podor le président la ville Macky Sall. ci tontu ya muy tontu ñiy attaqué nguur gi di wax ni dafa lajj ci ay pàcc yu bare moom may njaay tontu ni lu jëm ci wàllu mbay mi rek état bi def na ciy jéego ndaxte ci wàllu gerte gi ren jilee ñu ngi xaar arène yu bare tollu ci 1400 tonnes. 2004. deux cent soixante mille tonnes de de de de de d'arachide deux cent soixante mille tonnes ren on est à un million quatre cent mille tonnes mais boobu la béykat boo ko waxee ne yokku woo da ngay nax sa bopp. Sima nag doon dëkk boo xamante ni dëkku lislaam la bu fekkee ni tënku nañ ci kàddu Amadou Racine Sy. yii boo ko gisee nii mun na mel ni lu tuuti monsieur le ministre d'État waaye suy ma tuutiwul suy ma lu rëy rëy rëy ndax suy ma li mu meññ ci àdduna si bari na. donc euh, fii ba muy am université islamique c'est depuis le onzième siècle bon xam ngeen ni loolu du tey fii nag liggéeyu nguur gi daan nañ koy fësal ñaanal nañu nag njiitu réew mi ngir liggéey yemu sumba ci département bu Podor mu mën ko eggale ñu wax ci liggéeyum ndaw ñi fële ca Thiès kilifa yi nag taxaw temb rek ngir dooleel ah, ndaw ñii ngir nag ñu mën a am am xëy ñu ne nag lu toll ci eh, milliard ak juróom-ñeenti téeméeri million ci suñu koppar kon ah, daañu ko dimbalee ndaw ña foofee ngir nag am xëy yombu leen eh, jëruñ yi nga xamante ni moom la ñu dénk ndaw ñi moom moo ko xamle ci ab forum boo xamante ni ñu ko doon amal foofe mu soxal nag xëyum ndaw ñi Cheikh Anta Diop Seylatira forum bu ñu doon amal fii ci diwaanu Thiès ndawu Sénégal yépp ak ndaw yi nekk fii ci cees daje woon doon waxtaane du jëm ci seen wàllu ëllëg rawatina nu ñu mën a def tey jii ba amum xëy. dafa am loo xamante ne day baax ñu fàttali ko ci problème bi nga xamante ne am na am na muy problème yi xëy ndaw ñi que nekkul ci biir réew mi rek la posé woo comme problème loolu tey jéggi na suñuy frontière ba dem ci àdduna bi yëpp mu am ci nag ay jàngat yu baree bari yoo xamante ne ay boroom xam-xam def nañ ko ba génnee ko mu nekk loo xamante ne tey base la ci ñun pour ñu sukkandiku ci xool nan la ñuy analyser loolu ba pare nan la ñuy proposer solution yi nga xamante ne mooy solution yi war a jàppale ndaw ñi pour lii nga xamante ne moo jëm ci wàllum xëy. loolee tax nag ñu amal nag ay kuréel yoo xamante ne nag tabb nañu ko ngir nag fexe ba ndaw ñooñee mën cee jokk ñu mën leen a jox ay financement ngir ñu mën cee demal seen bopp. ministre de la jeunesse wax ni am na cër bu am solo buñ ci yuppil ndawu Cees yi. fii nga xamante ne fii laa toog muy Cees entrepre la délégation à l'entrepreneuriat rapide. ñëw na fi waxtaan ak autorité administrative yi ak lépp lu jëm ci organisation de jeunesse yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci biir région bi te tey ba alloué leen benn enveloppe boo xamante ne euh, un milliard neuf cent de francs fa lañ jagleel fii nga xamante ne tey mooy la région de Thiès. ndawi Thiès yi dikkoon bari woon nañu lool ku ci nekk yaakaar na tey jii amum xëy rawatina ci délégation entrepreneuriat rapide bi nga xamante ne indi nañ ko fii ci diwaanu Thiès. Euh, cant ak ngërëm ñeel na la Cheikh Anta Diop yi euh, nga xamante ne nag euh, moom la ñu dénk napp gi jamono ji may wax ak yéen nag ma ngay wutali kon mbuur ngir dem rek seeti njabootu ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo réerle seen i doom juróom ci ay mool yoo xamante ne nii kon kenn gisu leen ndax ñi ngi réer menten ñi ngi leen di wër booba tey am na ay fan xamuñu fu ñu féete ñoom nappkat yooyu ba tax na nag seen njaboot jamono yëpp ñu ngi leen doon déglu ñu yuuxu wallu ndax bëgg nañu ku leen dimbali ci seen doom doom yooyu euh, kon niñ ko waxee jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk euh, napp gi ma nga noonu ca yoonu mbuur dinañ ci euh, siwaat xët yu njëkk yu yéenikaay yi Mamadou Mohamed Ndiaye jërë ngeen jëf pàccax yi Mansour Faye ji ci ndox mi fooy tollu di ko dégg ci l'observateur ministre bi gàllo hydraulique ak assainissement di Mansour Faye moo amee xët mu njëkk l'observateur moom jëwlin gi ñu dénk ndox mi tooy na xepp ci ndox mi ubbil yéenekaay bi ma nga fay waxee ne 2014 ak léegi defar nañu juróom benn fukki forage ngir Ndakaaru am na yeneen juróom-ñaari forage yu yàqoon yoo xam ne defar nañu ko Mansour xamal ñu ne nguur gi taxaw na temm ci assainir forage ci àll bi mu di forage ruraux yi mu xamal ñu ne li ñuy def ci ndox ci réew mi bu dee téeméer la juróom-ñaar fukk yëpp Ndakaaru moo ko soxla maanaam ci 375 millions litres ndox yi ñu def bés bu nekk 350 millions litres yëpp waa Ndakaaru ñu ko Vox Populi nañu askanu Ndakaaru lu ñu dund fan yi ci ñàkkum ndox duñu ko nittali kenn quartier yi ci bari coon ak tuñ-tuñ la askan wa dëkkee woon ngir mën a am ndox mu di ca Parcelles Assainies di ca Patte d'Oie Kër Damel ak yeneen quartier yi ko wër askan wi gisuñu siitu ndox Walfadjri nañu li ñu naan xàcc woo gis wërsëguwaay la moo am ci ñàkkum ndox mi nañu yàkkamtiwul ndox mi jeex moo di borom sareet ndax ci diggante gaaw ak liggéey nañu ci xaalis bu weex tàll l'observateur xibaar ñu ne usine Kër Momar Sarr bi laajoon ay defaraat ba indi woon ñàkkum ndox mi usine boobee liggéey yañ ca doon def noppi na ba taalaat nañu ko démb ci ngoon ci gàttal léegi tey askan wi tàggoo ak ñàkkum ndox hôpital moderne ba ñuy tabax ca Touba sotteegul léegi li ko waral mi ngi ci direct info Ellipse Project di compagnie bi ñu joxoon marché bi moo dem ba ca digg ba dagg contrat bi doxoon diggam ak SCPI di sénégalaise de construction et de promotion immobilière bu Cheikh Mbacké moo di 500000 maanaam juróomi téeméeri junni mètre carré bu loolee dafa dem ba ci ba bind li ñu bëri yëgul woon ci autoroute à péage bi mi ngi ci Walfadjri yëleen xët mu njëkk journal bi coow ak mbamb am ci autoroute à péage bi ci wàllu sécurité bi ak éclairage bi Walfadjri xamal nañu ne am nañu leen xamal ci Eiffage ne waa Eiffage waxoon état Sénégal ba ñuy defar autoroute ba moo di dañu ciy def lamp état Sénégal moo bañoon loolee ndax dañoo bañoon yëf yi seet ci ñoom Walfadjri nañu waa Eiffage nee nañu ay lamp ci autoroute à péage bi ci état bu Sénégal la des moo mën a saafara jàngoro ji jàngoro yi réewum Libi gi ñu doon faje ci réewum Sénégal di am ndaje muy doomi Libi doon amal ci Ndakaaru ngir waxtaane jàmmi Libi Soleil national moom la xëyee xamal ñu ne démb lañu ko jeexal déggoo nag ci kawe kàddu seet nañu mën a def ba tegaat réewum Libi ci aw yoon indiwaat fa constitution résolution de Dakar noo ne Le Quotidien xëy tuddee la am ci ndaje mi ñu doon waxtaane waxi Libi déggoo nañu ci taxawal constitution bu yees ci réew ma ci jamono jooju journal bi nee nañu jege ñaale Muammar Kadhafi li ñu bëgg moo di président Macky Sall wax ak waa CPI mu di cour pénal international ñu dakkal topp gi ñu topp doomu Kadhafi bi di sayefal islam juge dem bu ñu ko déggee xel dem ci Ibrahima Amidou Dem di magistrat bi démissionné woon mi ngi ci la tribune boole fa di joxe xalaatam ci li am ci autoroute à péage bi ak li mu yaakaar ne mooy mën a tax ñu am ci Sénégal justice bu moom boppam moom ci boppam di juge Ibrahima Amidou Dem ak commissaire na Keita ak capitaine Mamadou Dieye ñoom ñett la journal La Cloche xëyee ay fippukat maanaam rebelle la leen journal bi jàppee ku ci nekk ak say jaar-jaar la cloche di laaj ndax ñoom ñett ñooñee mën nañoo soppi Sénégal kenn ca ñoom ñett ma nga ca loxo yoon les échos nañu moo di capitaine Mamadou Dieye capitaine Mamadou Dieye ak coow li ko topp la ca xew ak fa mu mujjee lépp journal les échos wax nañu ci lu bari l'observateur fàttali ñu ne keroog àjjuma la ñu ko jàpp ca Dakar Actu fa lañ ko fekk jàpp ko keneen ku ñu jàpp te ay mbiram tàmbalee Sénégal moom waa ji libe nee nañu kaso ngiru dund mi ngi koy yoot ndax juge bu dixième cabinet moo ko yóbbu ca kanamu chambre criminelle ngir ñu àttee ko fa àtte Bor Faye député Seydina Fall mooy dawul coow ubbi leen moom député Bougazeli mi ñu tuddee le lieu de Guédiawaye ci jéego yi mu nekk ngir lu falaat président Macky Sall bi nee nañu moo waral mayul waa Guédiawaye fu ñu yekk seenu nak keroog ci ndaje mu ndaw yi doon amal doon ma nga fa l'observateur nañu ca ndaje ma nag lu mu fa yekkul transhumant yi rek da koo fàtte nee na transhumant yi gëmuñu dara seen bopp la ñu gëm seen yoon ci njariñu Macky Sall dara bàyyiwu leen ci wetu président de la république lu dul seen njariñu bopp Modou Diagne Fada mi président Macky Sall woowoon ca wetam bu yàggul Le Quotidien nee nañu benn tànk mu nga kër Macky Sall L'Observateur ne ko waa Yeesal ñoo ko jox carte blanche ngir mu dem ànd jeeg Macky Sall nañu ànd ji ak journal su A xooli la xew ca Dakar Dem Dikk cadre ya nekk ca Dakar Dem Dikk dañoo tànn ci ñoom juróom benn fukk maanaam 60 cadre jox leen ay oto yu bakkene wata yooyee journal bi ci gën a tuuti fukki million ak benn lay jar ba ca gën a mag ñaar fukki million ak juróom lay jar journal Source A ne ñu li ñaw ci mbir yi moo di ci jamono ji maître Moussa Diop ak ñi mu àndal di def loolu booba fekk na ay bus yu dem dikk yu dul jeex ñoo nga paan ba ñu gaare leen ca dépôt ba demuñu dikkuñu. jaajëf Mamadou Mohamed Ndiaye yéen it sant nañu leen gërëm leen yéen ñi farewoon ci machine bi ñi jàpp ci xibaar yi bi mu sotti rédaction bi dig na leen daje ci yeneen jotaay xibaar ñu ñaanal kenn daloo jàmm ko sàkku